bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. am mbégte lool ñu dellu si ci sunu jotaay jotaayu majalis asalafu ma alquran magi démb nan lañu daan dundee ak téere borom bu màgg bii nga xam ne ñun ñëpp ci la ñu yaakaar ngërmandik borom bi subhanahu su taala waxee alquran rek. ñuy xalaat ci yenn bërëb la ñu koy defee kon tey jii ñu nekk def jotaayu majalis bi ci kër gi nga xam ne fa ngeen miin dina fa gis muy la maison du Coran au Sénégal baytul Quran fi Sénégal ci njiital Cheikh Abdel Aziz Camara hafidahullah yal na yàlla sàmm ko sàmm ñi nga xam ne ñoom la àndal yëpp inchaa allahu taala ñun ñëpp ñu ñaanal leen ndax jéego yi nga xam ne moom lañ def ba ñëpp ñu mën a ànd ci jotaayu daara yi nga xam ne ku ci nekk fa nga mën a toog di jël sa wàll ci mbind yi tey nag nekk sunu juróomeelu jotaay xool mag ñu baax ñooñee nga xam ne ci alquranul karim la nu ngoyoon nan la ñu def ak nan lañ ko daan dundee ñun faw ñuy andi yooyee taxawaay di xool ñun ndax ñun ñu ngi ci yoon wi wala saaraan nanu bu yàgg tey nag ñu déglu ki nga xamante ne mooy taabii bu mag boobee nga xam ne moom mooy abul aaliya abul aaliya la ilaha illa allah su ma ko tuddee rek fàttaliku jamiyatu ahlil quran bi Dakar nu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp yaakaar naa daaw jéeg na waxtaan wu yaatu bu ñu woon ci taabii bu mag bii di abul aaliya xam naa daañu ko andi ci jotaay yi incha allah tey nag mu nettali ñu benn wax ju rëy boo xamante ne sahaabi bu mag boobee nga xam ne suñ ko képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllum alquran sa yaram dafay daw waaye da nga mbégte lool mu nekk ubay bun kaab radiyallahu taala anhu ubay bun kaab mu bokk ci ñi nga xamante joxoñ nañ leen ci saxaaba yi ne ñoom ñoo mokkaloon alquran al karim waaye ubay bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy aimatul qiraa mu nekk ci imaamu jàngkatu alquranul karim yi nga xam ne tey ji kuy topp alquran wala képp ku ci yëngu rek yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala dénk la la nga xam ne moom la dénkoon ubay bun kaab ba nga xam ne benn bés ci xadis bu wér ci téere imam muslim yonte bi salallahu alayhi wa sallam ñëw ba ci moom mu ne ko yaa ubay ne ma jàng alquranul ubay ne ko allahu sammaani ndax yàlla tudd na ma yàlla dafa tudd sama tur ne demal ci ubay nga jàng alquran ci moom yonte bi ne ko naam yàlla daf laa tudd kon loolu rek dafa doy tegtal ba suñ ci naree guddal dañuy gën a yaatal ci ubay bun kaab radiallahu anhu benn waay dafa mos a ñëw ci ubay comme ni ko abul aliya nettalee rahimahullah mu ne ko aw sini dama bëgg nga dénk ma la ilaha dénk ma ndax ñun dañuy dem ci sëriñu daara yi di dem ci ñoom ñu ñuy dénk dee leen dem ci nitu alquran yi ñu leen di dénk dee dem ci ñoom ñu leen di dénk mu ne ko aw si nii dama bëgg nga dénk ma qaal ubay radiallahu anhu ne ko ittaxid kitaab allahi imaama allahu akbar mu ne ko damaa bëgg nga dénk ma ubay ne ko ittaxid kitaab allahi imaama jàppeel alquran al karim mu nekk sa imaam def ko sa njiit ittaxid kitaab allahi imaama kon njëkke ko ci suma bopp ak yow mii di teewlu jàppeel téere borom bi subhanahu wa taala mu nekk sa imaam alquran al karim jotaay bi yéen a koy teewlu ne ñun dañoo bëgg tegaat ci taabal bi xool mag ñi nan lañ daan dundee alquran al karim kon ubay bun kaab radiallahu anhu saxaaba bu màgg bii nga xam ne màggaayam tax na yàlla digal yonent bi muy jàng alquran ci moom mu ne ko ittaxid kitaab allahi imaama kon jàppee leen alquran al karim mu nekk seen imaam warda bihi qaadiyan wa xukma ubay ne waa ji na nga ko doyloo alquran al karim qaadiyan mu nekk sa juge mu nekk sa attekat wa xukman ak sa luwa allahu akbar jëlal alquran mu nekk téere bi nga xam ne moo lay atte lépp loo xam ne bëgg nga koo def ngal la dellu leen ci alquran al karim problème yi am ci biir néeg yi problème yi am ci kër yi problème yi am ci société yi lu mën a am ngal la dem leen ci kenn koo xamante ne xam na alquran fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun demal ci oustaz ba demal ci sëriñ ba nga ne ko lii dee lan la ci alquranul karim wax kon doy lool alquran lum la wax mu neex ci yow wala mu naqari ci yow jàppal ne moom mooy li gën ci yow ndax yàlla buur bi subhanahu wa taala loolu la ne ko na nga doyloo alquran te nga gërëm alquran acceptel alquran comme lan qaadiyan mu nekk sa juge maanaam ki nga xam moo lay atte wa xukman te attey alquran na ko doyloo <laughs> lii la mag xamoon ci alquran mu ne fa innahu alladi istaxlafa fiikum rasulukum alquran bii moom mooy téere bi nga xam ne seen yonent ñun ñi ñëpp yonti yàlla Muhammad ba muy génni aduna def nu bàyyee naa leen téere borom bi subhanahu wa taala parce que alquran moom mooy sunna bàyyee naa leen alquranul karim fa innahu alladi istaxlafa fiikum rasulukum mu ne ko kon alquranul karim bii ma lay naan doyloo ko def ko sa imaam nga doyloo ko la nga xam ne moom mooy atte ya nga doyloo ko ndaxte mom moy li nga xamne mom la yent yàlla Muhammad bàyyi ci ginaawam mom mu koy representer ci ñun lu nu jaaxal nañ dem ci alquranul karim lu meuna xew suñu biir nañ dem ci alquranul karim mune fa innahu alladhi istakhlafa fikum rasulukum shafiun muta' alquranul karim bu yowm alqiyamah kumu ram rek nga la di rëcc yaakaar naa gis nañ ko ci sunu jotaayu ñettel ba xawma ñaarel ba alquranul karim bu yowm alqiyaame alquran dafay xàmmee nit ki nga xam ne dadoon doon sëgg ci alquran guddeeg bëccëg subaak ngoon say su nekk muy jàng alquran bés bu nekk mu góorgóorlu ba leeral xarkanam gii ci leeru alquran bés bu nekk mu góorgóorlu ba tudd ay baati alquranul karim bu yowmal qiyaami alquran su la ne jàkk day naan waa ji xàmmee naa ko yaa rabbi xullahu yàlla dama bëgg nga décorer ko kon shafiun mutaa bu yowmal qiyaami alquran su la rammu rek su ne yàlla kii jéggal ko dugal ko aljanna yàlla daf lay jéggal dugal la aljanna wa shahidun la yuttaham bu yowm al qiyaama alquran al karim day nekk koo xam ne daf lay témoigner maanaam seede la boo xam ne kenn du ko duut baaraam maanaam seede bu ñu jamut la seede la boo xam ne du sikki sàkk yàlla du sikki sàkk mukk ca mu wax maanaam bu yowm al qiyaama alquran bu ñëwee taxaw ni yàlla diw dee ku baax la diw dee guddi gu nekk dafa doon naafila diw dee man mii la doon ubbi guddi gu nekk mu may jàng bés bu nekk daan na jàng lii ci man diw dee daf ma doon jëfee diw dee daf ma doon toppatoo diw da doon jël alalam di ko def ci sama yoon man alquran al diw dafa fonkoon ña nga xam ne mooy nitu alquran al karim wa shahidun la yuttaham parce que léeg tey jii mën nañ dem ci tribunal yi nit mën na ñëw nekk sa seede waaye dafa fekkee intere la dafa am loo ko bokkal ci suuf walla mu leer ñëpp ne kii li muy wax du dëgg waaye alquran shahidun la yuttaham fa nga xam ne fa ngay soxlaa ku lay seede kenn du la doy seede ñëpp arrière sa way jur sax arrière alquran daal ñëw taxaw daal di lay seede te lu mu wax yàlla bur bi subhanahu wa taala gëm ko kon xarit boobu xarit boobee nga xam ne mooy alquranul karim nan ko jàpp léegi lii la ubay bun kaab daal di wax mu ne fiihi dikrukum comme na ko ibnu saadi waxee mu ne fiihi sharafukum alquranul karim soo bëggee tedd rek jàppal ci alquranul karim alquran soo ci ngoyee da tedd mooy wax ju siiw joojee nga xam ne mu ngi dégg alquranu yanfa alquranu yarfa alquranu yashfa daf lay jëriñ yëkkati la ba bu yowmal qiyaamee mu daal di lay lan defal la seede ci kanamu borom bi subhaanahu wa nga daal di dem aljanna wa dikru man qablakum ay xabaru man qablakum walla téere ñi nga xamante ni ñoom ñoo la fi jiitu manam ci yonenti yi ak lépp lo xamantene xewon na ña nga xam ne tedd doon toppoon digle yàlla yi bàyyi tere yi ba daal tedd alquran nettali na nga xam ne digle yàlla yi di def la yàlla tere ba ñom ñu daal torox alquran nettali na wa hukmu ma baynakum lépp lo xamantene xew na seen digënté mu ngi ci alquranul karim wa khabarukum sen khabar yen lépp lo xamantene mom moy sen khabar lépp lo xamantene mom mo wara xew sen bir tey jii damay naan jullit ñi ñoo war a gën a avancé ci àdduna bi xeet goo xamante dafa am téere bu mel ni alquranul karim nan lay desee ginnaaw mënta ne tey jii suñu dellu woon ci alquran lépp loo xamante ne xew na ba yii di xew ci jamono suñu delloo dinañ fekk ne alquran am na fu mu ko junjoon dinañ fekk ne sunna yonti yàlla muhammad am na fu mu ko leeral yonti yàlla muhammad lépp luy xew junj na ko ba ci technologie bu bees bii nekkul lu dul ne dafay firri alquran al lépp loo xamante ne nit ñi ñëw nañu wax ko nañu dem xoole ndax dëppoo na ak li wax su woree ak moom rek ngoyal ca la alquran wax loole da nga dem ba trouvé ne la alquranul karim wax moom mooy li am kon alquranul karim mënunoo am li ko ëpp wa xabaru ma baadakum ba ci xabaaru ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ginnaaw yéen ubay bun kaab dafa ne waa ji jàppal ci alquranul karim moom mu ngi ci mbokk yi lii lañu saxaabi bu mag bii wax kon tey jii képp koo xam ne yaa ngi bëgg ku dénk andil nañ la dénkaane boo xamante ne ku màgg ci saxaaba yi moo ko dénkaane woon ne jëlal alquranul karim def ko sa imaam jëlal alquran doyloo ko en tant que attekat jëlal atte bi ci alquran nga daal di koy doyloo ndax alquran moom la fi yonent yàlla Muhammad bàyyi kon ñun ñëpp nañu ngoy ci alquranul karim lii mooy alquranul karim téere bi nga xamante ne moom la salaf yi ngoyoon kon tey ji lii moo nekkoon sunu jotaayu tey ji mu nekkoon suñu juróomeelu jotaayu majalis ci sunu jotaay bi nga xam ne ñu ko tuddee a salafu ma alquran nga xam ne lañ cey tudd rek mooy mag ñi nan la ñu woon ci alquranul karim nan la ko daan dundee ndax ñun tey jii ñu ngi ciy góorgóorlu ndax ñun ñu yoon wi ndax ñun saaraanunu ndax téere bii mooy téere bi nga xam ne ku ca nekk rek yaa ngi wax ak borom bi subhanahu wa taala ndax mooy téere bi nga xamante ne bu yowmal qiyaamee ñëppay bëgg téere bi xàmmee daal di ram mu yóbbu la aljanna kon mbokk yi nu ngi leen di dénk alquranul karim comme ni ko saxaabi bu mag bi waxee la nuy dellu di ko wax ittaxidu allahi imaman wa qadiyan wardaw bihi xukma nañu ñëpp ñu jàpp tengoy ci alquranul karim ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان سل الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته